asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim barkeb seex ahmadou bamba mbàkke xaadim rasul tabaski gii mooy bànneex bu far jur naqar ahmadou jong tabaski ren gi moo ko ëlëm ngir xar ya daa manki seer lool njëgg néew ku ko yor balaa di jur ñàkk gii tax kenn mënul dara ren fus gor di aw ba bégal soxnaam ya ak ñamu jur gorus jullit dafa am jaaxleeg njaboot ga mu yor di xul ci xotti akub ñawte amul njëgu xar bu dee sa xale yay jooy ñii di xul ñale mer mënoo leeg jaaxle fees ak i bor réew mip liggéey daa taxul kenn mën a denc dërëm moo tax te daw ba dee doo mën a gàddu sa kër borom bitig ba taxaw naa weer wi dee na ñëwal fa yoo courant fa ya goom ndox waa daral di la wër mënoo amoo pexe dootoo lekk mbaa nga nelaw te koo fi yaakaar itam day gantu mbaa du ko ñor yal na nu buur yàlla may xéewal tëful sunu fan te may nu wërsëg wu ànd ak barke dolli nu wér ki gi maa ngi ñaan buur yàlla may nu ci xar mu rëy te suur boole kook mat sëkk tey mu njabootam ga muy xar xotti ak la ca war gi kuy jaboot yal na ko yàlla musal ci ba njabootam ga mer bam gàddu bor yu ko lor tabaski gi kuy jaboot jekkul na farlu ci muñ néew doole ak ñàkk ñaawul bum la xañ mukk ngor ku yàlla baaxe alal xoolal ca kër ya la wër te buñ añee du ñu reer sàkkaat di am njëgu xar ku yàlla baaxe nga man xoolal ci gor su mënul doomam yi wër ko di jooy soxnaam di fay ak a mer lii laa ne woon dama koy wax ci tabaski gi ren ak ñaxtu ñuy séddale te man duñ ma jox sama cër sëriñ si di jox rajo Dakar télé directeur ak santé ak takk der waaw magi taalibe yi màggat ci jàng ka lu luñ mës sa am joxe seenu ñàkk tey ku mu ñor ko am alal doon murit saadix ba doon ku ñu naw noo mën di mel koo fi ñaan doomam mu may la jabar wax dëgg lii dafa jaaxal nag murit bu dëggal na ngeen ma bal àq sab xol doo nga feese naqar yàlla na nu buur yàlla may wërsëg te dolli nu wér fan bu gudd ak barke ak xéewal musal nu ci lor mbàkke bawal àllarba benn fan ci weeru tabaski ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru suliye 2020 Ahmadou Diongue Baye Diagal baleen ma àq jërë ngeen jëf jëre ngeen jëf jërë ngeen jëf